Qui des deux est tombé dans le, dans le piège, opposition ou le pouvoir Il n'y a pas de piège. Mm-hmm. Il, n'y a pas de piège. Mm -hmm. Mais bu fekkee opposition day teg Il n'y a, a, a ni piège. Mm-hmm. ni bataille. C'est juste un pouvoir. Mm-hmm. qui perd le nord. oui. C'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui du pouvoir. si ce pouvoir-là était intelligent. day nekk dans le concret. des réalisation sincères et purement économique qui découlent sur un mieux-être dit social c'est-à-dire que maanaam nguur bi li muy def nii mënu ci am ndam bu ñu newoon tey mar day taali rey nañu mille sénégalais. Mhm. échec la du am du doot maanaam nguur bi du mës a taxaw. Mhm. c'est-à-dire que ñoom li ñuy foog ne combat la du seen combat wala ñu xam du seen combat. yàlla ñu yàlla may fekk tal du du combat da nga administrer réew. Mhm. jiite mbooloo. même dans le subconscient ni ñoo fonctionner suñu autorité yi boo wéeteeg ñoom ñi ne ci kaw nguur gi xam lu ñu lay wax. Mhm. ci waxtaan parce que dañ ci am ay am di jàmm yu baax. Mhm. ci waxtaan dañ lay xamal ne la état dafa am doole. mais dañ la koy wax sur un ton boo xam ni. qui dirait pour te faire peur. Mm-hmm. ne la dafa am doole mën na lu ne waa ki sàkk état nag. Mm. yow état danga am doole Abdou Fall waa ki la sàkk nag jox la lu doole boobu. Mm-hmm. jël toq toq torf tal ay ni lu toll nii loo xam ni atome sax gën na ko gën na ko ëpp doole mu dénk la nga gàddu ko di def nii di funki di menacer nit ñi. Mm-hmm. da ngay doof rek. sa bopp metti ñu ne faatu na yàlla na yéex te ñu ne dara daal na ko si fini nguur day fekk nga tàlk am ci yéene bu baax yàlla dooleel la nga am ci yéene bu bon war askan mhm. yàlla di la néewal xam nga nu muy commencé dalay rocc ci xolu nit ñi nga yëg nga bañ a yëg mu neex la nga bañ laa neex bu la neexee jaay doole nag bu la neexee menacé ku ne mais yàlla di la rocc ci bëtu nit ñi boo rombee nit ñi soof leen sa odeur sax du leen neex ndax bon boo xam ne day incarné wu nga kaa développé ñi nga àndal nit ñi di leen xoolee noonu ak ñoo nawoon ñi ne ci nguur gi tey y a dix ans dañ leen doon tàccu mhm. dañ leen doon félicité yàlla mu dal opposant yàlla bu mu leen dal opposant yi fi ne mhm. yàlla bu parce que bu leen dalee Sénégal day gën a metti donc yàlla bu mu leen dal waaye ñii fi ne il mhm. y ans dañ leen doon tàccu man j'ai toujours en souvenance san Mamadou Diop yàlla na ko yàlla yërëm ajjuma jooju muy julli fële ca place de la nation di noot ndeysaan. nga mhm. xamul ni boo dix huit heures quarante cinq jàpp dix neuf heures jëm dix neuf heures ndeysaan oto bu bon boobu dina ko def li mu koy def. Mhm. yàlla ci yàlla musal musal ci mboolem jullit. je pense à sa famille. Mhm. ñaata nit ñoo dund ay blessures ci jamono boobu ñu taxawoon nii ak kilifa ya sunu baay ba Moustapha Niass ak ña ca des. oui. ñu ne dem nañu Moustapha Niass ñu naan dëgg la du dëgg. Mhm. sunu baay bi Mansour si Djamil taxawoon nii ak frère am ak ña ca des kilifa yi taxaw. Mhm. ñun ñëpp ñu ne fa. tey ñooñu doon xeex nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar Benno Siggil senegal boobu. Mhm. teeree nekk benn Bokk Yaakaar tey ñoo yor nguuru Sénégal di tiire ci senegal yi. adduna mën a dox. léegi nag dañuy wax benn affaire. mbir bu tollee fii lan lañu ñu war a def. Mhm. où sont les régulateurs sociaux. ah te kilifa diini yi du ñu araftu. suñu diin ñun ñi nga xam ñun dañuy dañuy daw di toog seen kanam ñoom lu ñu wax ak ki jiite réew mi. Mhm. duñ ko ne sëñ bi sunu doom yi ngeen di faat ni du dëgg du yoon. leneen lu ñuy lijjanti ñu leen tëkk kenn du wax lool mais dañ naan opposants yi toog leen jàmm gën ay. mais jàmm joo xam ne waajaa ngi la tiim di la noot Sénégal bu nu waxul bii wax bee waajaa la tiim di la def li mu lay def ci lu bon. ñëpp mm-hmm. teg ci seen bët. mais yow mi ñuy def lu bon ñu ne la noo noo xam nga jàmm gën ay muñal yàlla dana jeexal lépp muñal waa ji def li muy def di noos di enjoy di play game di dem di dikk yow nga toog di souffrir kan mooy jaam ci réew bi bay nangu loolu. mais qui doit dire qui doit dire stop kilifa diir yi ñooy jël seen micro jàkkaarloog nguur gi ne ko hey. lii hmm. mënut a wëy suñu réew du réew góor jigéen suñu réew du réew bu ñuy def ñetti mandat ak ñeent suñu réew du réew dictature. Hmm. du àjjuma dañoo wax Ousmane Sonko ne ko doo julli ji. Hmm. kilifa bi jàkkaarlook moom ne ko dañoo jot ay ordre lii nii bu dako yéen ñëpp ma wax ko fii tey. mun naa ko wàcc alxuraan yàlla ñu yàlla may fekk tal. yéen ñëpp di soutenir président Macky ci ci lii bu ngeen ko yeddul mu soppi lii. Mhm. moom mu continuer ci yàlla bu mu ko réussir. waaye dégg nañ dem sëñ Abdou Karim Mbacké mu ne bu mhm. yéen. Mhm. yéen kilifa yi ak sénégalais yi ànd ci loolu. wala naan sama yoon new ci. waaye toog leen xam ngeen ni nguur gi mën a ëpp doole. loolu su amoon. ñooñu di jàppale président Macky Sall ci loolu. bis dina ñëw ngeen bëgg circuler ci dëkk bi ñu téye leen du ngeen ko def. waaw mais am na ñu génn ku ci mel ni Serigne Abdou Karim Mbacké démb wax na ci je parle mm-hmm. de kilifa yi ñu ngi wax ak seen façon. Mm-hmm. je parle de quelque de frontal. Mm-hmm. président Macky li muy def du dëgg du yoon. dañu war a wax président Macky Sall ne ko fi nga jëm nii baaxul foofu la ñuy waxee kilifa yaa ngi wax. wax ak wax mu ngay ah, dégg mais est-ce que dégg na wax frontal ma nabu ñëpp dañoo gëm suñu kilifa yi dañ leen a si suñu xol mais est moom dégg na déedéet dama ne si wax ak wax wax ak dégg. Mhm. wax ak ki ñoo wax ak ni ñoo waxee moom. Mhm. yéen président Macky Sall mën naa tëw suñu kilifa diine yi. bu leen tëwee moom bu yeboo ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp. dëgg neex yàlla. Mhm. kilifa yii sanu ay papa ngeen sanu ay maam ngeen. bu dee een ngee waxar moom ci suuf muy def li muy def wax leen ci kaw askan bi dégg. na kilifa yi wax si kaw askan bi dégg ñu xam ne kat kilifa yi wax nañu parce que sanu maam Baye Lahat Abdou Lahat Mbacke. da daan woo Abdou Diouf na ko Abdou nangam ak nangam ak nangam. Mhm. Alaaji Fallou Mbacke da ko daan def ak Senghor ak sanu maam xalifa Khalifa Ababacar sanu maam Abdou Aziz Sy bu waxee ak Abdou Diouf ba pare day woo mbooloo bi jak saaw wala fii ci zawiya bi wax ñëpp dégg. Mhm. sanu maam Alassane maam Raan Baye Raan 92 ñëpp déglu nañ discours am contre Abdou Diouf ak li fi xew. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen c'est ça que nous parce que réew bu fekkee kilifa yi dañuy toog la seetaan. léegi qu'est-ce qui va se ñun ñëpp dañuy toog xool ñoom nguur gi ñu ne ñoom ñoo am doole ñenn ñi sax di message téléphone naan la boo de toute façon booy da ngay sa bopp mais tu sais ñun ñun ñoo am affaire yi nga koy xool nga man. ah man ree la may def pourquoi mooy def ree. Mhm. parce que dama naan kii de bu xamoon suñu borom. tey tey tey tey tey tey bu xamoon suñu borom li mu wax ni du ko wax. Mhm. ndax dara leeru ko fii ak di li xew. xamu ko waaye day fekk nga gëm loolu soo ko gëmul da nga koy ignorer. moo tax yàlla ñu yàlla muccal ci l'ignorant qui ignore qui ignore ba pare jiite wala jiitu wala ne kanam wala yor ay responsabilités vous ne pas en deux mille vingt deux. Mhm. yéen ñëpp ñi ànd ak Macky Sall laay wax. vous ne pouvez pas en deux mille vingt deux. Mhm. dinu xool si ay bët. au vu du du combat mené il y a dix ans contre le régime de Wade ngeen ne yéen tey da ngeen soutenir président Macky Sall ci forfaiture. Mhm. kaka def nga yëg nga bañ a yëg mu neex la mu bañ laa neex di nga ko di ko fay suba bu la neexee nag reetaan ñenn ñi dañuy reetaan ay nit ñoo faatu ay sénégalais na ko fi réew mi toll nii. Mhm. ñun sunu borom rek lañ ko seede moom rek lañu kaa seede li noo wax lañu gëm la yaqin la ak iman lu nu gëm la amul benn mbindeef si àdduna boo xam ne war nañ kaa mën a ragal ba mu wax lu nu xalaat Ahmed Aïdara Déthié Fall Mame Diarra Fam euh, Guy génn nañu seen kër ngeen ne jàpp ngeen leen soi-disant da ngeen leen di déférer tey au parquet un ministre de la justice qui se targue d'éloges dans le sens ku newul ci yoon dañ lay redresser te yéen ngeen xam ne new leen ci yoon loi de parrainage bi wax ne da ëpp ëppale benn war leen bokk ngeen forcé bokk ñi war a bokk ngeen beddi leen ba pare ne leen ngeen fi génn ñun ñoo yor armée mhm. ngeen foog ni yàlla day seetaan loolu ci lu ndaw ci lu gàtt ci lu du sore yàlla na yàlla def loolu rectifié wu soit ba ngeen rectifié wala ngeen wàcc yàlla ko yàlla def. <laughs> merci Passane mami trois morts ndax ëppul après les événements de mille vingt et mu dolleekoo ci ci quatorze ndax ndax ëppul et la même question te revient kii pour dire stop bu dee kilifa diine yi la ñuy xaar pour ñu wax ban kàddu lañu ñu war a wax ak lan la ñu war a mën a def pour pour calmer la situation actuelle. Euh, yaa benn moo sax ëpp na benn. <laughs> Mhm. benn rek ci régime benn rek ci nguur benn rek benn benn mhm, mhm. dafa ëpp waxuma fukk ak juróom-ñaar mhm. parce que mine de rien entre 2021 et 2022 il y a eu 17 morts 14 en mars 2021 dernièrement bu ñu ci yokkee nag bu bu ñu xaaree confirmation yi nga xam ne dafa nekkoon hôpital te ba san ne yëg na itam ne ñàkk na ba kenam chiffre bi dafay gën a yokk nabu boo jiitee am nguur bu ñu la jox ci jàmm mm-hmm. nga yor ko di ko doxal di ko doxal ba dara deseetu la lu dul ay weer pour nga pare mm-hmm. yow de pratiquement ci sa fin de mandat benn nit rek bu ci ñàkkee bakkanam benn benn benn rek yow boo toogee war ngaa xalaataat bu baax a baax a baax a baax a baax sa bopp xuma laak nag fukk ak juróom-ñaar ci ñoo xamante ne nii du ay ghanéen du ñu ay ivoirien ce sont des sénégalais nga jiite leen yow. <laughs> waaw waroo mën a toog nag nga xalaat nga ni man lan laa waram def ba sama réew nekk ci situation d'instabilité bi. Mhm. lan laa war a def ba ñu tollu tey foo xamante ne sama réew ci sama doom man sama ay doom yi ma jiite. am na ci ñoo xamante ne ñàkk nañu ci seen bakkan mm-hmm. nabu loolu ku ci dul xalaat mm-hmm. man say mbir daf may jaaxal te en fait cest à ku néegle loolu am nga tëdd nelaw tranquillement dara jaaxalu la amul remise en question amul tiitaange amul dara mm-hmm. man damay tiit man personnellement et man sincèrement dama tiit man wax ji wax ji yëpp man pas Assane man wax ji wax ji li muy bëri yëpp mooy mhm. li ma gis nii man en fait moo tiital ci loo xamante ne élection yaa ngi ñëw au mois de juillet mhm. bu ñu ci paree en 2024 bu yàlla defee jàmm incha allah dañu war a organiser yeneen présidentielle ñeneen war a mhm. ñëw effectivement te liy indi li dindi instabilité ci yenn dëkk yi ñu jegeel yépp ay mhm. situation politique yu mel nii moo ko causé et boobu ba tey Sénégal nag génnoon na ci loo loo boobu parce que nag comme je dis c'est pas que le Sénégalais est passif ah yow may gis nit ñi naan non Sénégalais dafa non c'est que en fait Sénégalais mooy peuple boo xamante ne maturité bi ñu am ak fi ñu toll jàpp nañu ne mhm. à la limite wàcc sax ci terrain bi mhm. doonul solution bi gën sénégalais civilisé na te yegg na ci benn degré de maturité boo xam ne jàpp na ne bu lépp doxee ci yoon ki mu war a doxee du ñu ci boole seen wax seen coow du ci bari élection dafay jot dañuy dem voté ji def li ñuy def ci fulla dem toogaat seen i kër na bu amul benn sénégalais bu nekk ci réew mi wala bu nekk ci bitim réew bu bëgg situation d'instabilité ci réew mi amul te nag ñoom lu ñu koy bëgg bëgg bëgg lu ñu koy bañ a bañ a bañ bañ mais ñi ko jiite ñoo ko war a njëkk a bañ mm-hmm. la responsabilité d'une personne du d'un mort dans un pays rek est waxuma laak nag chiffres yi ñu fiy wax nii yépp benn rek dafa diis benn hmm. dans un état normal am na noo xamante ne bu ñu ko continuer def dëgg-dëgg amul sax amul man xawma ban ban tour lañ ko war a attribuer te nag aussi pas Assane dafa wax wax bu am solo on ne dit pas sunu kilifa diine yi waxuñu artuñu hmm. on ne dit pas qu'il mais bu réew dafa am fu muy toll bu taskatu xibaar yi waree wax waxuñu bu ay nit war a dénoncer dénoncer wuñu ñi war a nekk ki nga xam ne moom moo nekk ci njiitu réew mi bu ñu ko waree wax dëgg te waxuñu ko dëgg mm-hmm. bu ay nit avec de pouvoir tollu leen foo xamante ne ni maanaam yow am ak ñàkk lañu yemale ci réew moo xamante dafa mel ni réewum Sénégal particularité bi ñu am ñun yeneen dëkk yu nekk Afrique amuñu ko fii Sénégal ndax nag réew mi bu taxawee ba tey heure bi bii nga war a xam ne réew mi kon nag yat la li muy diiguwaale nii moo ko téye réew mi dafa am ay ñaan yu fi nekk mais maam Abdoul Aziz Sy ba tey bu situation tolloo ci critique ba tey dañuy teg ay vidéo ba tey dañuy teg ay discours am parce que li muy wax li mu daan wax dafa mel ni ci jamono tey jii la ko gën a soxla mhm. dafa mel ni yegsi nañu tey fu ñu koy dunde mhm. te sëriñ mun Mountakha ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa diine laay Serigne Mahi Niass dégg naa ko moom itam mu wax ci mhm. euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa laayeen mu ci mënti doon ci ñoom en tout koo ci toog wax ak sa njaboot dina am lu mu la déggal dina am lu mu la rusé mais rawatina ki nga xamante ne moom moo jiite réew mi nag bu fekkente ne ay dañuy wax moom te déggul jàll. Mm-hmm. waa kon xëy na bu ñu ko woowee ci diine dina dégg bokk parce que nag situation mars 2021 bu ci sëriñ si waxul woon yëf yi doon na gën a grave parce que tolloon na foo xamante ne xale yi bañatuñ ci woon dara. Mm-hmm. ñu demee ba ay armée génn cib réew. Mm-hmm. mais loolu garaaw na nabu. bu ñu demee bay gis ay ay char yoo xam ne ci défilé lañ ko daan gis défilé rek lañ naan leen daan gis ñuy génn ñu dem ba ci am réew ñu ciy génn ñu naan armée bi génn na. Mhm. te taxul askan wi dellu ginnaaw. mais bu ñu ko continuer loolu mooy indi ay guerre ci cim réew. Mhm. te bu ci kilifa yi waxul woon du yegg fi mais waruñoo mën a xaar sax ba yegg foo xamante ne dañuy tollu ci maanaam dañuy wañ ñi ay nit ñu ñu ñu ci ñàkk seenu bakken pour que ñii ñi war a mën a wax nañu wax bu ñu dee wax nabu dëgg yàlla moo ko moom. te liy dëgg mooy ki jiite réew mi ci boppam moo war a dimbali nit ñi dimbali askanam te xam ne li ko fi dese bëritul dara deru fee ñaaw lu mu deful woon ci at yi mu weesu mënu ko rattraper ci li ko dese mm-hmm. kon nag li ko dese amaana dafa war a gën a rafet bu fekkente ne lu baax rek moo ko tax a jóg bu fekkente ne diriger réew mi ci jàmm ci salaam moo ko tax a jóg bu fekkente ne dafa bëgg sàmm stabilité réew mi loolu rek moo ko tax a jóg moom président mm-hmm. de la république Sall mm-hmm. li mu war a def tout simplement et tout bonnement mooy li ko desee mu fexe ba jàmm stabilité am ci réew mi te loolu leen rek moo koy indi na bu mhm. lan li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum constitution bi mhm. bu ñu biij bu ñu changé nañu ko bàyyi ci bouton bi mu ne parce que bouton boobu la ñi ñuy xeex ba teg ko fa nañ ko bàyyi ca foofee balaa maa des juristes yi naan ma ci biir loi am na point am na virgule am na deux points mais terewul loi bi benn loi moom la ñëpp bokkandoo jàng. Mhm. te dafa amee juriste ci réew mi ñu ne doxalin bi ñu xam ne doxalin nañ ko doxalee nañ ko ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum législative yi ci tànneef gi choix wu conseil constitutionnel dëppoowul ak yoon. Mhm. mais nag <coughs> lu ñëpp jàpp ne dëppoowul ak yoon yow mënoo koo doxal ne yow lii mooy yoon par la force kon nag bu bu boobaa nag nekkatul nag ay affaire de ay affaire de règle ay affaire de constitution ay affaire de jaay doole lay mujjee nekk. jaay doole jaay doole boobu sax jaay doole boobu la ñuy nemmeeku dafa mel ni intimidation dafa dafa dafa dafa dafa ci benn côté parce que euh, ku ci mel ni ay dara démb ci commissariat ba tard dans la nuit dans la nuit d'hier am na ay éléments wu police commissariat bu Dakar Plateau bu ñëw jël lii di ay téléphone am ci commissariat bi nga xamante ne fa lañ ko téye woon. que pourquoi. ma foog ni bu ñu la jàppee en garde à vue sa téléphone ci fi ñu la jàppee foofu la war a nekk et pourquoi prendre ces ces téléphones pour pour en faire quoi pour le cas mhm. tiituma ci xam nga lu tax tiituma ci pourquoi mhm. booy xoxatal da ngay ku ragal met ragalu bu ragaloon il n'allait pas être constant dans sa démarche mhm. bu ragaloon du doxalee ni muy doxalee ak di waxee ni muy waxee di bokk nit ñi gis-gis lii gis-gisam te muy gëm-gëmu boppam nag. Mhm. parce que li muy wax lu mu gëm la ah, lu muy def lu mu gëm la ragalul parce que yàlla la àndal te fii yàlla rek a fi ne. Mhm. yàlla dong moo fi nekk. fii mhm. amul ku fi yàlla yàlla lu. seul Dieu unique moom rek moom moom rek moo fi nekk ku koy ragal danga koy ragal moom kese képp dong kese soxlu nga ciy doftal keneen xoolal. gis nga li nga xamante ne moom moo xew ci réew mi nii <laughs> ak mën a jeex suba mhm. bu kenn nax sa bopp ci wàllu woowee mhm. xoolal bu ci nit ñi xeexul sax bu ci nit ñi waxul bu ci kenn dóorantewul ay xeer sax mhm. situation bi ni mel mënta continuer te du continuer cim réew te nag dinay toll foo xamante ne nii dëgg-dëgg nit ki boo dee wax par les sentiments jàllul ngay négocier jàllul non rapport de force bi mënul ñàkk mhm. te li ma la wax encore une fois avant kilifa diine di ko am c'est-à-dire que kii jiite ci boppam moom moo war a jiite bëggu-bëggu jàmm jooju mhm. moom moo ko war a jiite nabu mhm. man même bu fekkente ne j'ai l'opposant le plus radical le plus terrible le plus insolent le plus incontrôlable man état nga xamante ne man maa yor doole yépp nag man maay réguler man maay wàcce fexe ba ñëpp man maay fexe xolal ba ñëpp bu ci nekk bokk nga am sa wàll ci yëf yi te loolu koy tax mhm. mooy man doxal rek li nga xamante ne moom mooy yoon. Mhm. Régis ce serait bien ñu ñu amaat euh, euh, vidéo arrestation wu Ahmed Aïdara. nañ doxal yoon mhm. rek ci réew mi. te kilifa diine yi nañ leen koy ñaan ngir yàlla ak jëmmi rasulillah yi bu ñu waxul sax ak askan wi. moom mi nga xamante ne bu amee ay projet wala buy jublu ci ay mbir ak lu mu mën ci doon it dem ba ci ñoom ñaan lu ki nga yaakaar nag doo ko na nabu. ki nga yaakaar. mënoo koo yab mm-hmm. nañu wax ak moom mu xam ne réew mii itam am na foo xamante ne ñafe nañu fa ba yegg fa bëgguñoo dellu ginnaaw ci wàllum démocratie bëggatuñoo gis suñu ay doom ñàkk seeni bakken mm-hmm. bëggatuñoo dund situation de tension yi ñuy dund fan yi bëggatuñu mm-hmm. ko on ne veut plus de ça xam nga lu ñu bëgg. Mhm. li ko dese as tuut moom na doxal yoon. Mhm. te na rafetal bu dem jotee na dem point mhm. barre. ñi may ñi may laaj naan ma sëñ Abdou Karim la wax démb wax na ci situation actuelle du pays na yi tamit ku ci mel ni Ousmane Sonko wala waruñu koo tere. ab jullit duñ la tere waxtu julli bu jotee ñu ne la doo dem julli ci en quelque sorte ñu am ci lecture rek ne nit say droit fa mu fa nga xamante ne loolu nga am ci say droit waruñ la ko mën a tere même si da nga am mbébétu def loo xamante ne yenn wul euh, dëppoowut ak yoon d'autant plus que ñoom la ñu woote woon nekkuñu ca lieu ba te waxtu wa ñu waxoon ni moom lañ ko bëgg a def jotagul woon euh, loolu lecture boobu lañ ci